asalaamaaleykum ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm di am euh, mbegt ci di ñëwaat fii nag tey jii ngir di tëj li nga xam ne moom lañ doon liggéey ci ay bi yu ñu weesu yëpp ci ndigalul Cheikh mun taxa ñu joxoon ko sëriñ Ahmadou Mokhtar mi nga xamante ne bii moo jiite mboolem kër Cheikh Mamadou ak mboolem kër Cheikh Mamadou Lamine Bara mu àndoon ko. ak mboolem yoonu murid yépp muy bokk yi muy taalibe yi muy seex si kenn desut liggéey boobu doonoon centenaire bi nga xamante ne bi moom lañ doon defal sëriñ bi gannaaw téeméeri at yi nga xam ne ñibbisi na fii ci tubaa ñu ne ma nag téeméeri at ab lim la boo xam ne buñ ci àggee war nañoo xool dénkaan yi nga xam ne moom moom lañu fi sëriñ bàyyi woon ana ñun téeméeri at yooyu yan jéegoo lañ ci seqi kon loolu moo sababoon ñu tëral ay waxtaan yoo xam ne waxtaan yu bari la woon defe ko Touba defee ko Louga defe ko Njaareem defe ko Ndakaaru ñëw tëj si waate ko Touba Cheikhour ak ay bokk yu baax a baax fi ma toog nii rek gis ngeen Serigne Cheikh Thioro loolu jël kàddu léegi ak Serigne Sidi Abdou te lépp ñu ko def ñu jiitul Serigne Cheikh Abdou Aziz mi nga xamante ni moom moo jiite woon comité bi ànd ko ak mboolem bokk yëpp te kenn ku ci nekk doon ñooy xare doon jàmbaar mook si Ousmane ñu nekkoon coordonnateur yi tey jii nag dem nañ ba ci cëppandaw gi fii lañ ko tijjee woon ci Touba defoon ay waxtaan yu am solo waxtaan yëpp ñu defoon ko ci Cheikh Mouhamadou Moustapha jóge ca waxtaan ci li nga xamante ne mooy bennook jullit yi jóge ca waxtaan li nga xam ne ci mooy sàkku lu ci lislaam ak naka la ko sëriñ bi gise woon ci sàkku lew ci yoon mur ak naka sëriñ bi gise woon defoon li nga xam ne bilan bilaa lañ ko mën a tudde eh, ci yoonu murit li nga xam ne jëf na ko ci jàng ak ci jàngale yoonu murit li nga xam ne jëf na ko ci wàll koom jéeg yi nga xam ne dëkk bii nga xam ne mooy Tuubaa ñu nekk fi seqi na ko kon loolu lépp waxtaan lañ ko waxtaan yooyu Serigne Cheikh wax na ko léegi lépp dañ koy tënk mu soobee yàlla def ko ci ay téere bàyyi ko fi mu nekk bilan du siècle bi nga xamante ni moom la ñu génn ginnaaw sëriñ bi waaye lañ ci jiitaloon nag moo di ne waxtaan sëriñ ni nga xam ne noonu la nekk woon njaareem waxtaanaale itam li nga xam ne moom lañu ñu dénk bàyyil ñu ko fi tam defoon ko ci fukki fan yi ak juróom benn kon loolu mooy li nga xam ne moo nekkoon ci bis bi ñu seqoon ko nag ak mboolem réew mi yëpp du ma ne rek Yoor Mbuur dong lañ ko seqaloon ndax kenn ku ne gis na bañ demee Ndakaaru mboolem torox yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi ni nga xam ne noonu takkoon ni wuy suñu ni nga xam noonu la autorité gouvernementale takkoon ne wuy suñu ñi nga xam ne noonu la aussi ñi nekk ci kujj gi takkoon wuy suñu ñi nga xam ne ñooy kilifa aada diin nga xam ne aussi mooy homme d'affaires Sénégal gépp ñoom ñoo fa ñoom ñoo fa cant yi def nañ ko léegi suñu Ousmane def na ko Serigne Cheikh def na ko ki ma ci jaaral rek ci aw turam muy nga xam ne moom moom lépp mu di Cheikh moom Mountakha nga xam ne kenn mënu koo fay ndax lii buñ ko ci amee gannaaw yàlla jëmmam moo tax ndax lépp lu ci war moom moo ko def moom moo joxee ndigal yi moom moo wax taalibe yi ba nga xam ne bis yi mel na noo xam ne ñëpp xam nañ ne bis bis bis bu ni mel day du ma ne mus am wante yombul li ñu wax léegi ne njaareem gis nañ ne mbooloo mu toll noona musu faa daje te keroog daje dañ fa kon loolu lépp nag bu amee li gannaaw yàlla baaxoo Cheikh Mouhamadou Mountakha la ak itam nag takk yi nga xam ne ñi mu dënkoon takkul nañ ko ak pas-pas bi nga xamante ne bii eh, ñu ko ci doon doxalaale loolu moo sabab ñuy sant mboolem réew mi yëpp nag di gërëm mboolem réew mi yëpp nag di leen xamal ne lu ñu doon def mboolem diine gi lañ ko doon defal ndax ndamul lislaam la du ndamul rek ñun ñi nga xam ne ñun ñoo ko ñun ñoo ko sequl waaye li ci ëpp solo mooy li nga xam ne moom lañ ci war a jàngate mooy lan sëñ bi ñibbisi na boobaag léegi bara téeméeri at xayma nañ li nga xam ne jëf nañ ko fi. gis nañ ne kat jëf yi seq nañ fi ay jéego yoo xam ne jéego yu rëy la gas nañ fi raay bi tabax nañ fi jumaa ji Touba dem na ba tey ji nekk département Mbacké nekk premier département du Sénégal wàllu koom kenn ku ne gis na fi nga xamante ne foofu la mur gi toll wàllu jàng ak jàngale gis ngeen université bi daanaka doon ci sëkk ay junni junni junni yi lu ëpp ñaari junni daara nekk ci biir euh, dëkk bi li nga xam ne moo fi nekk ci ay jumaa kenn kenn kenn xamul nu mu toll kon day mel ne fànn goo jël rek am na si am na jéeg yoo xam ne seex nañ ko ci waaye loolu dafa doyut dañ cee war a rek sukkandiku ngir ci siècle bii di ñëw ndax loolu bokkoon na ci li nga xam ne moom la ñu waxoon moo di bu ñu xaymaa li ñu weesu loolu nag nañu niital li nga xam ne mi ngi suñ kanam kon ñu ñëpp nañu jaajuwaat takku xam ne que liggéey bi day soog a tàmbali beneen xarnu moo tàmbali kon li ñu defoon duñ ko fàtte de waaye nañ ko xeeb fexe ba xarnu bii di ñëw bu ko suñuy sët toogee di xayma def loo xamante ne bii moo ëpp li nga xamante ne bii ñun defoon nañ ko ndax noonu noonu la mbir yi war di war di doxe kon ñun ñëpp nañu jaaju feddali suñu ay laxasaay xam ne ñu ngi soog a dugg tool bi jàpp ne tàmbaleeguñu jàpp ne defaguñu dara kon li nga xam ne jot nañu ko def bu ñu ko yéem bu mu rëy ci suñu ay bët ndax Sëñ Tuubaa lépp lu waay defar rek li mu yeyoo ëpp na loola da ngay def rek ba fa sa kàttan yem da ngay des nga àggalee ko sa yéene waaye nag li ñu weesu am na solo jëf ji rëy na ndam yi bari na waaye nañ njàpp ne ndam yi nga xam ne moo gën a rëy sax ak see gut kon tàmbale dara kon man foofu laay woo mboolee mbokk taalibe yi foofu laay woo mboolem mbokk jullit ñun ñëpp ñu gën a takku gën a gën a gën a doon benn gën a boole sunu bopp tënku ci li nga xam ne mooy li sëriñ bi bëgg ci ñun ñun ñëpp ñu moo si ànd ñu maa si ànd topp ci ginnaaw gi nga xam ne moom moo ko fi nekkal di Cheikh Mouhamadou Mountakha te lépp loo xam ne digal na ko ñu di ca xëy ba jant bi so lépp lu mu bëgg itam ñu defal ko ko ndax loolu rek mooy suñ njariñ te bu ñu ko defee fi nga xam ne fa lañ bëgg yoon dem fa mu nekk sagub lislaam gépp nekk namul lislaam incha allah rabbi danañ fa àgg kon ñu ngi sant ñëpp ñu ngi ngërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërë ngeen jëf